mu nekk nag liggéey bu jafe bu ñàng la euh, xare la dugg nañ ci ba génn xadara bii bii bii neexul dama dugg sama oto ndeysaan romb benn waay ca place de France mi ngi toog ak benn waay te xamul ni waa ji maa ko may werd waa ji ni ko gisal rek noskat yi seetal otom bu naayis bii ñoom sëriñ si dañuy noose rek waa ji wàññeeku dóor ko saago ko ndey ñu atte leen mu ñëw dima ma ko nettali ma ne ko waaye matu ko ma ne ko moom xamul noos ah ma ko xamul luy noos ma ne ko oto bi nag yàlla nu ko jox il faut nu dugg ci waaye noos taxul de ndax tàlluñu ko koo xam ne daa iman yaa ngi ci mbedd mi yaa ngi ci tali dama ànd ak Ibrahima Samb bërki biig sëriñ bi yónni nu benn mission taw bi yëpp suñu kaw na taw mat na trois cent kilomètres nu jóge fu ñëw ci guddi gi reerunu parce que Dakar la te awuma fu kër te toggalu woon reer te nu nga yëg si onze heures te añuñu woon bi nuy dem kat nu xëy nuy dem amuñu reer nu nuy def nag ma ne ah nañ ma jëlal potu sàdd ndax ndekkiwu woon añu ma xanaa dama mos dara ñu jënd potu sàdd ñëw ñaari pot nu lekk ko banku na ma soloo woon noonu laa banku solu ma sax pyjama huit ñu ñëw fëgg ma ni ma kaay wuyu ko te neen na nga ànd ak Ibrahima Samb ma sàmm nga Cees ma téléphoné ko huit heures mu dugg oto karang karang karang neuf heures vingt la yegsi nañ dem nu ñëw mu téye ñu ba deux heures vingt ma ko sëñ bi tey la tamxarit muñ ma Aziz tamxarit du jeex mu ne bu jeex bu déwénee mu dellu si te lii nag farata la waaw day jeex nu jógee ci sa ci taw bi kurum kurum kurum kurum cinq heures demi laa yegsi fii añuñu ndékkiwuñu reeruñu biig reeru añuñu bërki démb ndékkiwuñu ma xoolaat sama bopp ma ni kii naan dañuy noos de xamul li xew lu xew ma ni ko ah, oto bi nag moom tabaarkalla ci barke Babacar Si la sama dërëm demu ci dama toog rek Mercedes téléphoné ma ni ma am nga fi oto ma ko oto mu ni ma waaw fekk alaaji Abdu mii moo ma yónnee ndaw ni naa ko jox sama oto muy cinq cent quatre ma ma jox ko ko mu dugg ci dellusi ni ma yal na nga am bu mag waaw loolu la ni ma yal nga am bu mag ñu teg ci dix jours Mercedes téléphoné ma ni ma am nga fi oto ma ne ko oto mu ne waa benn Mercedes ma ne ah loolu de waaw ku ma ko jox mu ne ma alaaji ma xari géey ca Thiès waaw nee nga di ko def service ma ne ko ah il faut ma dugg si nag bu ma dee doxi waaw ah, parce que itam ah dama jël benn gardien naar ca suñu école ba may dugg oto ñëw mu ne ma sëriñ sëriñ bàyyil oto ma ne ko ah, ja oto mu ne oto baaxul yaa ngi wut pene yaa ngi wut huile yaa ngi wut essence yaa ngi ak sa yaa ngi dom yaa ngi de ma ne ko waaw kon lu may wut mu ne gëléem mu ni ma yaa ngi wut gëléem yaa ngi yëg ci kaw yaa ngi togg sa jabar ngelaw mi ngi farfa ma ne ko ah waaw xanaa ca gànnaar waaye li ma li may dox fii waaye ko euh, Cheikh Tidiane dama ko sant sëñ Mansour si di ma ko sal sëñ Moustapha si di ma ko sal Alaaji Abdul Aziz si suñu kilifa ñun ñëpp di ma ko sal ma ne ko loolu moo ko waree gëlee mbaa dana sotti waaye fekk na boo xamul xamoo ka nga defee ni tal na ko talu ko waaye ñun li ñuy daw xam nañ ko li nu jaayanteel xam nañu ko li nu bëgg xam nañu ko